tuumal Ousmane Sonko ne dafa bokk ci Daesh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 ko ci ne lay rey ñu delluwaat ci biir yéenekaay bi di l'observateur mi ñuy xibaar ne ki ñuy tuumal ne bokk na ci ñuy faat Mariama Sagna teg ñu xamal ne ki ñuy tuumal na ci ñuy faat Mariama Sagna teg nañu ko loxo ca Tambacounda Saliou Boy lay wuyoo le quotidien ne ñaari nit lañu teg loxo di leen tuumal ne seen loxo taq na ci mbir mi mu di yu Boy ak Ousseynou Diop nga xamante ni bi ñu koy teg loxo dañoo jàppale woon kii di Fatou Bintou Thiam di yaayu Saliou Boy ak koo xamante ñu ngi koy woowee